c'est bon ah asalaamualeykum wa rahmatullah euh, monde làmb asalaamualeykum Sénégal asalaamualeykum àdduna liñ naan nag otoraay bu jubee gaar corne te laaxum daaw bu ñu koy fàttaliku ba ren ci fay laa tax te lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole maa ngi wax ci turu association des jeunes lutteurs du Sénégal man kona bu écurie Lamsar maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog assistance beeg presse bi tey dañu woote woon ngir def suñu déclaration de presse wala conférence de presse pour wax ci actualité bi xew ci làmb en tant que nag leur porte parole ñu jox ma seen kàddu pour ma présenter askan wi li nga xamante ni nii moom la ñu war a moo ñu tax a jóg donc soo déggee nag ma ni otoraay bu jubee gaar corne mooy dafa am monde làmb tiis bu dal ci suñu kaw muy sunu papa wala suñu maam Mbaye le tigre de Fass def lu nekk ci làmb yàlla jël ko kon defe naa ñun bu ñu bokkee ci ay sëtam wala ci njabootam tey euh, bu ñu bu ñu naan euh, euh, ñay bu dee xàll mbabal tubay doom jaa tax tey bu ñu jotee ci làmb ñoom ñoo tax kon tey suñu suñu ñàkkee ku mel noonu rafet na tey suñu toogee ñu jëmmal ko daal di koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana maa ngi jaale sam papa Tafa Gueye ak képp ku nekk ci làmb ci turu mobile président bi ñu ngi jaale suñu papa Mbaye Gueye sunu maam Mbaye Guèye fas yéene ko defal une minute de silence ku nekk salaatu boo jàng ñu ñaanal ko yàlla yërëm ko xaare ko àjjana salaamaaleykum amiin allahumma nga xam ne moom lañ ñu jotalaloo pour opinion nationale internationale. ñu xam ne mbër dañoo bokk ci askan wi maa ngi présenté président mobile moo toog nii sama càmmuñ Mathieu Pereira moo bu écrit Balla Gaye moo toog nii sama ndeyjoor bu écrit waalo waalo Balla Gaye ku ci xuloog yow tooñ la euh, maa ngi euh, Valdo moo nekk aussi le grand champion bu ginnaaw raay moom it moo ngi nii toog notre secretaire général ki nga xamante ni mooy Gakou 2 moo ngi nii toog ah Agogo le trésorier de l' association moo ngi nii toog Euh, ki nga xam ne mooy le coordonnateur l'initiateur le grand Onde le Fou notre grand champion mooy ñaan ñu tàcc ko ndax lii lépp su xewee moom moo tax ndax moom moo njëkk am initiative bi kon Onde le Fou ñu ngi lay jaajëfal le grand champion Mamaya champion bu Tëngéej Mamaya bu Tëngéej moom it moo ngi nii toog ak champion yi nga xam ne ñoo ngi toog fii yëpp on na peut pas citer ñoom daa bu Texas xam nga sëriñ Ndiaye bu ba bu écurie Balla Gaye wala bu Waalo xam nga Ma Ndiaye ñoom caat caat bu waalo xam nga champion yi fi toog yëpp ñoom booy jolof xam nga pour ne ah ñoom caatu xaar yàlla mbëri daal juge nañ fu nekk waaw maanaam daanu dajul suuf ñoom daa bu Texas ñëpp ñëw nañ gaa yëpp eh, Elton bu bu géejawaay gaa yi jóge nañ fu ne rek orca koo lim doo matal ku ma fàtte nag ma baal mais sama xel bëgg na lim champion yi nga xam ne tey ñoo toog fii yëpp di xeex nooteel parce que tey ñun débat bi boo ko gisee ak lii lépp rek mooy dañoo bëgg a xeex suñu àq ak suñu yelleef dañoo bëgg a wan askan wi ñun bokk nañ ci société bi dañoo bëgg a wan opinion nationale et internationale que ni mbër am na beneen bët bu ñu ko war a xoolee bu dul di leen jàppee ay dof wala di leen jàppee ay nit yoo xam ne ils sont nuisibles à la société tey taxawaay bii ngeen am wane na ko comme nag damay introduire kese dama bëgg dama wane woon naa introduire comme man maay la porte parole présenté bureau bi présenté bi jox président mobile mu mu wax su waxee ba pare après ñun ñu del si daal di yaatal daal di daal di euh, euh, les angles daal di euh, conclure asalaamualeykum wa rahmatullah kon ñu jox président mobile kàddu bi waaw asalaamaaleykum gars yi silence demandé ah waaw asalaamaaleykum pour une deuxième fois Kona la porte-parole des jeunes lutteurs donc may rebondir rek euh, fi gars yi fi gaa yu daanelee ne leen maa ngi féliciter assistance bi encore une fois di rafetlu kàddu yi fi jib kàddu yëpp kàddu dénonciation la boroom gémmiñ guy naaj peut-être du wax jàmm moo tax ñun sax waroon na noo gën a mer nii waaye xëy na euh, discipline ak yar bu ñu yaree moo tax lu bari duñ ko mën te nag nañ ko def boo gis nañ ko waxtaanee moo ko jiitu moo tax ñu ne nañ njëkkee waxtaan ndax. tey avec la magie de la technologie mën nga toog fii nga wax li ngay wax Macky Sall toog biir palais mu dégg sa jooy kon donc suñu jooy lii ñuy wax dañoo bëgg autorité yi dégg ko jël si ay mesures balaa avant qu'il soit trop tard parce que du ay wax kese après dañ poser ay acte pour ma wax leen nag euh, ma bëgg a expliquer historique gu ñun suñu taxawaay ñun jékkee-jékki wu ñu féeteelu ne dañuy créer association non non man mii di wax ak yéen képp ku nekk si monde làmb xam nga ni Kona il était actif de l' association des lutteurs en activité depuis Khadim Gadiaga man ñoo ma fekk sama kër man jël si ma man Kona 2017 bi ma defee sama sortie boobu ma def dal ci kaw gestion bu nébuleuse bi CNG nekkee woon ci ci làmb ji ci la ñu ci la daanaka révolution bi démarré ma ne pour qu'il y innovation il faut qu'il y ait révolution ma nekk benn jeune lutteur boo xam ne damaa jóge si victoire bu ma neexoon toog ne man sama yoon nekk su comme gars yëpp Gris mii tey su bokkee ci xeex bi tey man maa ko ci goole Agogo mii du ma bàyyi ma fen mobile du ma bàyyi ma Gris Bordeaux moo ma ne ci làmmiñam sama nopp mu ne ma Kona sa ITV laa déglu yow ak Lamine bu Lutte TV boobu Lamine sax caméra lay téye Babacar moo doon moo doon questionné man maa taal sama moto dem ba foofu bës mii tey ne ma Kona est-ce que jàkkoo ni li nga wax nii ma dagg si dara ma ne ko boo si daggee dara yàlla buñ xola àjjana sax du ma duma du ma la ko baal bul dagg dara tegal lépp mu ne damay ragal mu joué si sa carrière parce que li nga wax sax mbëri mag yi ñamewuñ ko te li nga wax lépp dëgg la ma ne ko comme dëgg la rek tegal lu ma ci fekk ma jël bu doon da nga ne ma li mu wax du dëgg bu boobaa nga am loo ci dagg mais comme dëgg la tegal ndax yàlla moom moom dëgg te dëgg moo mag ñëpp te effectivement ni mu ko doon xalaatee noonu la demee bi ITV bi génnee effectivement bi ITV ITV bi génnee dafa def buum Gris Bordeaux moo yëkkati téléphone am woo ma ne ma booy li nga wax nii ñun mbër yi mag yi ñoo ko waroon a wax billaahi yàlla na ñëpp dugg àjjana ma dugg safara bu dee li may wax du dëgg kii témoin la mu ne lii nii ñun mbër yu mag yi ñoo ko waroon a wax mais yow nga am courage wax ko booy tu tout dit te bis ni ki tey man maa ngi si ak combat bi jour bi ko Tafa Gueye di woo di ko dugal ci panel bi jour boobu mu ngi mel ni tey ci man ñuy ñu moog Tafa Gueye ñu nekk si oto père Tafa Gueye mu naan bis ni ki tey maa ngi seen ginnaaw te lu ngeen nekk ma nekk si bi ñu demee arène nationale bi ci kaw étage ba kon ñoom laasana ci théâtre verdure foo de duusi ba fa la Gris Bordeaux waxee woon Alioune Sarr sàcc la foofu lañu njëkk a réunion suñu première réunion Gris noo ñëw toog Ama Baldé ñëw toog mbër yëpp ñëw toog kon tey ñun dañoo te man association bi tey dugaluma ci sama bopp dañu maa ñëw fekk jël si ma taf ma si seen wet ma nekk xale bu ndaw nekk ci seen biir mais nag mbir mi du affaire u xale moo tax ñun ñii ñëpp ay ndaw lañ mais soxlawuñ magum jëmm magum xel lañ soxla ñun ñii ñëpp nañ use suñu moyen xam ne ay ndaw lañ te réew yi Sénégal ngay ñu naan la xale nga Sénégal dañ nañu jël ndaw ñi ndaw ñi nañu jël seen responsabilité soo Messi Messi benn at la ma magee man te il est milliardaire multimilliardaire ñun dañoo war a gëm ni ay ndaw lañ te avenir mais boo bàyyee ba nekk ma nga am xaalis donc mais àdduna xaalis bi du neex si yow xale moo war a am xaalis kon xale moo war a gérer xale moo war a gëm boppam kon tey taxawaay bi ñu am ci association des lutteurs en activité bi ñu demee ba gis ni Gris Bordeaux mii fi muy teg tànkam du foofu Khadim ga moo démissionné dama leen di wax rek pour yéen ñi questionné ngeen xam ne ñun fetteelu wuñu dañoo toppe waaye ñi ñu topp bañ demee ba gis ni ñoom li ñu tax a jóg ñun taxul leen jóg seen seen intérêt la dañ leen faa bàyyi ne ñukk tey ku jàkkaarloog Matar Ba wax ak moom dëgg man mii mobile junj na ko bi Khadim Gadiaga ñëwee démissionné Gris Bordeaux moo ñëw taxaw ñun ñu proposé ko man bokk naa wallahi kii ngi nii bokk naa ci ñu ko doon campagnal pour mu jiite parce que am na sax ñu taxaw ne Kona moo war a nekk président ku mel ni Pape Sène tey mu ngi États-Unis du ma bàyyi ma fen dugg ne Kona mii moo war a nekk président man leen man parewu ma sax maanaam bu dee lu gën ci làmb Gris Bordeaux nekk président moo gën ci làmb agogo ñu ne du ma bàyyi ma fen ñu ne ma lu tax agogo mi sax taxawoon na ne a nekk président bokk lan moo ñu amalu njëriñ làmb dox te Gris Bordeaux nekk président moo gënoon am profil bi parce que Khadim Gadiaga dañ ko daan xeeb CNG da ko daan xeeb naan dafa gëj a bëre il est inactif depuis 2012 bëreewul du mbër politicien la waxuñoo ak moom. loolu yëpp daf ñu doon porte préjudice te teguñu ko fenn Khadim ah. Gadiaga mbër la te moo jiite mbër yi dañu war a wax ak moom mais comme tooñ bi ñu yàggee injustice bi g yàgg a def nanguwuñ la wax Khadim Gadiaga man nag pour ñu contourner fee boobu nañu jiital Gris Bordeaux il a le beau doone ñetti mbër te doo ko tudd kon donc kooku suñu jiitee tey association bi am dayo bi nga xam ne moom lañ bëggoon mais loolu vision la tey ñun kon duñ ko duñ ko jiital ba pare campagnal ko ba nit ñi jiital ko ñu wëlbati ko di ko xeex amul sens kon dañoo gis ni doxalinam baaxul nu mu ko doxalee du noonu ñu taxaw fustige ko ñu gis ni moom mu ngi dem ci plateau yi di dem ci autorités yi naan président de lutteurs te deful benn acte bu jëmale làmb kanam ñu koy gis ñu koy invité ci télé yi muy privilégié wu ci opportunité ma parce que président des lutteurs du Sénégal kooku du caaxaan président de lutteurs du Sénégal kooku du caaxaan kon bu mu demee di ba mu demee ba ñu jox ko ko kon war na am taxawaay bi ñu demee ba gis nii lu mu dox Maodo mën na ma seede magam rakam ma ne ko Gris de ñun ànduñu si li ngay def am am na benn jour Agogo mii nii moo taxaw ci biir groupe bi ne ne ko Gris dañ laa soxla ñëwal parce que li ñu waxoon defoo si dara xam nga la wax Agogo man du ma wax yow nag am na ñoo xamante ne nii dañuy toppaate te yow ci ñooñu nga bokk man maa dugg man konaa man ci biir groupe bi ne ko amul kenn man bu mag bu ñemee wax Gris Bordeaux li nga wax tegoo ko ci yoon man maa dugg ci biir groupe bi taxawal kii ne ko kii bu bu la gënul gënoo ko te fi ngeen teg gëneel du foofu kii dafa bokk ci ñi la jiite kon bu la laajee nga ko war a tontu kon ñun on est là pour défendre l'injustice bu ñu demee ba ñu ànd ak yow ci dëgg dañ dafay bàyyi ne ñukk tey Gris Bordeaux tey xëcc na ma teg ma ci wetam tey dëgg moo tax man ak moom ñu tàggoo bu sañoon ba tey maa ngi si wetam mais ànduma ak nit ci lu dul dëgg parce que man li moo ma koy defal maa ni 2017 ba tey bëréewu ma yàlla gis di ma yërëm yéen ñi ñëpp loolu laa la gis nga yàlla deful benn mbir rek ne sa wërsëg si lii la nekk wallahi su ngeen gëmee ni yàlla am na beneen yàpp bu dul kecca wallahi li ñuy xeex dañ ci am ndam mais feeg yéen a ngi gëm ni feeg yéen a ngi gëm ni feeg yéen a ngi su ngeen sibooruwul su ngeen dunguruwul su ngeen su ngeen toppul ay nit ba jaay seen ngor du ngeen am lu ngeen bëgg wallahi yàlla dina leen bàyyee kooku te du ngeen mës a am lu ngeen bëgg te ñun mbëri loolu moo ñu dal Youssou Ndour way na ko Youssou Ndour nee na boo toppee nit foog ni yow mooy sa mooy mooy sa wërsëg yàlla bàyyi la ak moom seetaan la te ñun mbëru làmb yi balaa ñuy wax lan moo tax nit ñi ñu teg lu ñuy teg nañu xool ñun ban taxawaay lañu am ci société nañu xool ñun ban taxawaay lañu am ci biir monde làmb bi ñu nekk lu tax ñun nous sommes irrespectueux lu tax ñun nit ñi respecté wuñ ñu ñun ñoo war a xool lan moo tax nit ñi respecté wuñ avant ñuy nekk di victimiser wu dañoo war a xool ñoo responsabilité est-ce que ñun jël nañ ko lan moo waral ñu wekk ki nga xam ne mooy Lamine mu mujjee ñëw yoolu microom ñu jox ko wekk jox ko responsabilité yow mbër mi nga xam ne yaa ko jiitu sa lamb juróomi soo ñëwee ñu ñu doye dal lu tax loolu uude ni mu la gisee la lay ëwalee kon donc doomu aadama xat fakka kab bi sa bi sañ Tuubaa wax ci ci ne nañ nañ dañ tekki jëng yi faut briser les chaînes nañu tekki jëng yi ñun ñëpp ay jullit lañ seule la lutte libère seule la lutte libère ki xeexul du ku xeexul du am ndam mukk képp ku am ndam ci àddina képp ku am ndam ci diine képp ku am teraanga si àdduna da ngaa xeex ba am ko kon seule laa lutte libère kon donc ñun bëgg nañ ñu libéré ñu waaye nañu wane li tax ñu ñuy libéré parce que maa la ëpp doole toog sa kaw di la duma wàcc ma yàgg may gaañ ju tax ñu baal la kon encore une fois Gris Bordeaux wekk bu rëy ba lan laa ko wax ma ne ko Gris ñun de am nañu opportunité ber sunu sunu parallèle loolu laa ko wax ne ko ñun mën nañoo def sunu bureau parallèle taxaw contre carré la balaa loolu nañu toog ñu waxtaan xam lan la ma am ngeen si droit dem leen ngeen def ko wallahi yàlla na ñëpp dugg àjjana ma dugg safara pour tontu question bi ñu ne lu tax ñun demuñu ñu a tante waxtaan avant lii di xew ñun dañoo doya dal suñu bopp Maodo mu ngi vocal yi man maa ngi vocal yooyu ba tey Maodo Giri 2 damaa jë parce que Maodo moo doon dox médiation bi il un gars intègre ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mais il est un Maodo Giri 2 li ko xamal laa koy seedeel nit ku baax la te nit ku dëgg la te ku seetaan ne nit ku mu jël fa xam na ni je suis un élément clé boo xam ne mën na ko apporter dal mu ne ko Konami bu mu la rëcc te Konami li muy wax na nga ko déglu na ngeen bàyyi leen xel ñoom ndaw ñi mais deful loolu mu ne ñoom am nañ droit def lu leen neex nañ dem seen yoon kon loolu moo waral li am kon pour tontu seen question ñun féeteeluwuñu ñëwuñu ber mer ngemb dañoo gis injustice bëgg koo kaas ñu ne ñu da ngeen a tuuti du ngeen dara maanaam mat maanaam maanaam yëngu-yëngu géej yàqul nelawu jën ñu bëgg leen wan ni nag ñun ñoo waral coow li ñun mbëri ndaw yi ñoo waral coow li kon encore une fois ñun fétteeluwuñu bañuñu ku ñu yilif ñi ñu yilif ñoo ñu wegul ñi ñu yilif ñoo ñu joxul cër ñi ñu wegul yilif ñoo ñu tegul fañ ñu war a teg la vue ñun tey am nañ ay prérogative mais assise nationale am na fi pour ma wax leen yéen yéen ñi nekk si làmb am nañu xeex nañu ba def mémorandum pour ma wax leen ils sont corrompus les grands lutteurs là ñoo tardeel làmb mbëri mag yi ñoo tardeel làmb il faut dire il faut il faut appeler ça par son nom ñun def nañ mémorandum nara def conférence de presse Matar ba ne bàyyi leen li ngeen di def yëpp ngeen ñëw wuy si ma mooy bi ñuy waaj a inauguré arène nationale bi mobile bu ma fenee nga ne ma fen nga ñu def une mémorandum de 10 points lépp luy jafe-jafe làmb lépp lu ñu wax fii nii def nañ ko ci biir mémorandum bi benn magu Tafa Gueye moo ñu ko gin bindal muy Malick Gueye moo ñu ko bindal bindal ñu mémorandum bi nga xamante ni ministres yi sax moom la ba ci ménager bi dañ koo xeexal ñu conflit d'intérêt kii di wax dañ koo dugal ci point bi ñu il y a eu un conflit d'intérêt parce que tey mbër mi promoteur bi munul nekk manager manager munul nekk manager yor mbër ba pare dem nekk agent wu promoteur loolu conflit d'intérêt la ko tubaab di woowee. mu ngi mel ni tey nga ni da ngay défendre intérêt mbër mi en même temps nga bëgg a défendre promoteur bi te intérêt mbër mi mu ngi ci biir intérêt promoteur bi intérêt promoteur bi mu ngi ci biir intérêt mbër mi. kon boo gisee manager yi di gën a suqaliku que dañoo jël ñaari intérêt di ko téye mooy mooy victime bi mbër mi moo siy perte parce que tey Abdoulaye Ndiaye par exemple bu fekkee mooy doxal jéey. ba pare yor yor ay mbër tey buy dëgg làmb tey day day di seet intérêt yi bu nga seet intérêt mbër yi mënul nekk il faut mu seet ci benn intérêt te moom rek moo ciy gagné promoteur bi du ci gagné mbër mi du ci gagné kon encore une fois moo tax ñun ñu wéet parce que ñi nga xam ne ñoo ñu waroon défendre suñu intérêt dañoo am yeneen intérêt yu ñuy défendre te loolu conflit d'intérêt la ko tubaab bi tuddee soit que da ngay dem nekki agent promoteur défendre intérêt promoteur wala nga ñëw nekk euh, manager défendre intérêt mbër ñaar yooyu moo mën a mais mënoo jouir les deux fonctions à la fois kon donc li tardé làmb loolu it ci la bokk te ñun dañu xam ne ñu ay dof on réfléchit gars yi nag monde làmb bëgguñu ko yeewu man bu ngeen gisee ñu écarté ma loolu la monde làmb bëgguñu ko yeewu te ñun ñoo bañ a bañ loolu maanaam nañu bañ nañu bañ bu ñu bàyyi dof doflu toog naa ci année barki alxuraan maa mais sur le saint Coran mbër doful man maa waat loolu mais ñun ñooy bëgg di nekk benn citoyen de arrière plan pour am lu ñu bëgg loolu dafa jeex layam layam ak yërëm tëlu mayeetul dara si àdduna bi bu ngeen yaakaaree ni seen doole ji ngeen yor naan da ngeen di layam layam ci koo xamante ni matul 80 kilos pour am lu ngeen bëgg munoo leen koo nax yéen ay perte pour loolu boobu wax loolu pour ma rebondir ci Matar Ba bi ñu defee 10 points ñun ñu doon taxaw ci biir groupe bi Boy Niang dañ koo woo pour ma wax la rek gars yi ñun li tax ñu fétteelu ñun xam nañ ko Boy Niang bi mu demee ci inauguration ba ànd ak mbëru simple yi ci biir group bi dañ ko doon saaga ay ndey